monsieur le maire bu Lour Escale lañ dalal di Abdoulaye Kap euh, monsieur le maire euh, bu baax ci dal ñëw fekk si ñu waxtaan yow waxtaan bu njëkk rek dañ koy dalee ci li xam ne xewoon na mooy élection yi ci le 25 février euh, campagne bi war a démarrer fan mais le président de la ba le 15 décembre. yow nan la mbir mi def ba nga déggee nouvelle bu mel noonu boo boo nuyoo mbokku département bu bari. gannaaw bi ma sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suma ñaari waajur maa ngi nuyu région Kaffrine yëpp de nuyu département Koungheul de nuyu commune Lour fi ma bokk eh, de la sargal yow it ak sa njaboot comme li nga ma laajee ci mbiru élection bi eh, sooy bañee juum sa kam-kam fim fim hem sooy wax sa waxtaan foofu lay hem li ma kam ci élection bi ñun kam waajoon nañ ba takawal comité comité électoral ñu ne dàkk nañ mbir mi biñ gëstoo ñu laajte ñiñ war a laajte dañuy wax ne opposant am ñoo kam ne ñoo wax ne dafa am nger ci biir am ñoo xam ne ñu ne dañ leen war a jël te jëlul leen te il faut loolu ñu toppatoo ko te accident foo xam ne suñ ko naree dem ñoom dañooy taxaw ñu ne mbir mi dem nañ ci lu duur yoon eh, ci lu duur yoon te suñ dàkkee mbir mi ji nga coow am te fekkee yaa ngoy yaa ngoy dem ci programme ñu ne ni ngay pare baaxul man rafetlu na ñu ne nañ takaw deferaat ko man foofu laa gise waa man ki ma gënoon a yàkkamti élection bi amul ndax luy ñàkka def ko rek nga pare ci ni mu mën a demee moo gin day dem. lool ngeen yaakaar eh, maa ngi eh, jàkkaarloo ak askan bi yëpp. Mm-hmm. de jàkkaarloo ak Sénégal ak aduna bi yëpp. Mm-hmm. man manuma wax dañuy gagner wala duñ gagner. xam naa daal président Macky Sall mm-hmm. liggéey na ci commune Ndour loo xam ne benn président réew mosul ko liggéey ci Ndour Escale te man 2014 ba jéem naa ci luur loo xam ne waxuma kenn mosut ko fa jéem waaye leer na ma yoraluma kenn akke te jàpp naa kenn yoraluma akke kon ñeme naa tallal ñëpp la ko nañ jàppale suñ candidat ndax man naa jokkoñ jokkoñ jokkoñ jokkoñ mu bari te fekkee du deñ sa commune bokkoon ci commune yi xam ne déggoon na ci commune électorale bi ay jafe-jafe yoo xam ne amoon na ci ba kenn sa naataango yi nekk sa adjoint maire génn am ay kàddu yu teg sa kaw. loolu nag indi na ay jafe-jafe mais heureusement ni sa der am na wala amul li xam ne déggoon ko ci biir yow yaa ko def wala defoo ko genre. jërëjëf xam nga su fekkoon du leeral wala seetal sa der. Mm-hmm. ngir say doom ngir say set lii duma ci woon dem donc jàpp naa ne tey mooy première fois ñëw te micro wax ci rajo su fekkee du programme boo xam ne dafa ñëw ci commune bi wala programme boo xam ne damay dem fekkee ji ko eh, aadoo xuma li daanaka man li ma gëm rek mooy dem liggéey su may liggéey waaye yeneen peñali duma ci dugg waaye ni lii nag leeral ko baax na ci comité électoral bi la njekke biñ ko jàppee eh, ministre Assane Diop président conseil département moo ñu woo wax ñu ko eh, ñu jógee fa dem daje ji eh, kër Serigne Jebel biñ ma ko waxee it comme que kam naa ne Eh, daanaka commune bi daanaka bariwul liñ fay def ndax suñ fay baree dégg-dégg mën nañ indi coow comme li fa amoon mooy tax woo na am na am na xam ne dama leen tànnal suma bopp rek ma woo leen pour nit ñi bañ a nekk de wax woo ma woo ma ñoom it jotuma ci woo kenn demay demay kool benn suma benn rakka ki ñooy wax Demba ma ne ko xooxal ma eh, dadi dadi ba xooxal ma Assane Ka xooxal ma Naago Ka ma jappatuma kima koye wak wonenga hohal ma ñingane dañoy waɗa tagal comité électoral suba Koungheul ah ku ci man dem rek dem fekkee ji pour bañ ni ñi wax yow da nga yolleeku rek de dem doo wax kenn waaye solo bi mooy comité électoral suñ commune ñu jóg dem yàlla def ñu daje fii ñu ne kër Serigne Jebel lañ koy defee ñu dem kër Serigne Jebel bi ñëwee Hmm. man ñëw na suma jarbaat boobu eh, maire naango ka ñëw na ak ñoom ñi ma waxoon ñëw nañ fekkee nañ waaye bi nga xam ne dem nañ be ñu tàmbali weerante comme que yàgg nga dem daje soo gisee loo xam ne day dem rek danga kam soo gisee loo ne du dem it danga kam te man kenn ma fekkee fi ñooy keeg wala fi ñooy kuloo ci la yolleeku nii génni ma ànd ak maire ribo escale jama sekke ñu dugg suma oto ma ne leen ñëw leen ñu ñibi fii gisuma fi eh, liggéey fii eh, keeg ñooy mujj soo wattut ñu départ bi ñëwee ñu ñëw suma kër njaati gi bi ñëwee eh, équipe bi yëpp ñëw na fa maam góor jum ñëw na fa dadi ñëw na samba ñëw na nango ka ñëw na aliou ka ñëw na ibrahima ba ñëw na maam góor jum ñëw na ñoom équipe bi yem ñëw nañ fekk ma kër baaji bi ñëwee ci laa xebal suma chauffeur ma ne ko demal indil ñu añ ma ebal suma rakk ma ne demal jëndal ñu basang bu mag ñu boole ak basang bi ñu laal ci ron mango bi pour ñu mën a waxtaan ci loo ci foofa la ma maire ma Karim Bay ñëw jël si ñu ne ma woo nañ la ba tey jotuñ la demal ker eh, ñu ngi la kaar kër Assane Diop mu jël ma ci otom ñu dem ma ne leen kon toog leen maa ngi ñëw biñ demee biñ waxtaanee ba ñu tànn président Assane Diop président comité ñu ne bépp maire vice président vice président nga ci laa jóg eh, ay maire Adji Mor mu ngi doon foofu ma ñëw ma ne ko monsieur le maire mu ne ma ne ko vice président bi nañ la jël beneen beneen poste biñ tudd Lour nga kool luur ki nga xam ne yelloo na ko nga dugal ko léegi man maa ngi dellu am na ñu nekk ci kër ga ma waxtaan ak ñoom su fekkee woo naa suma mu ñëw jël si ma ñun ñaar ñu ñëw wàcc kër ga bi wàccee fekkee attaan nañ añ bee ñu ngoy waaj a dem moom meer naa ko ka la njëkk a recevoir suma nekk samedi boobu ci eh, eh, cinq heures bu teg ma ne ko léegi dañoo jàppoon tagal comité électoral altene waaw comme que ñëpp ñu ne na ñëpp def dimanche waa PAMECAS ñu ngi ñëw pour financer jigéen yi dimanche waa suñ paree katariyeer nañ takawal kon suba ñun ñëpp katariyeer ñu daje fa ñu takawal suñ comité électoral mu ne waa baax na ma ne ko ma digal la benn mbir suñ demee benn poste ñun buñ ko soxla ndax comité électoral bi rek solo bi mooy mooy su ñëwee nañ ko texe ñu ñu xool fi koy mën a dugal ba ñu am résultat ñu waxtaan ci loolu ma ne ko mooy benn ma ne ko ñaareel bi soo demee waxtaan leen ngeen tànnal ñu représentant bi doon ak ki ko topp ak mandataire su ngeen ay tànna leen koo xam ne man na liir te am na fit ma ne ko soo demee it alaaji demba nga nga wàkk ko ndax kom que ñu ngi ànd ànd bi ñooy ànd nii toujours ko ko kaba yee kaba wala kaw ko fàtte rek day kii boppam wala keneen fekkee mu ngi wax ci moom mm-hmm. soo demee nga wax ngeen waxtaan ci ngeen tànnal ñu ñetti nit cu ngeen tànnee ngeen awaay ko bittee moom mooy defar liste bi ñu tàggoo ci foofu biñ fa tàggooyee ci suba gi ñu kay waa PAMECAN ma nekk ak moom ci jigéen yi ñu pare ma dem kër ga ma ñëwaat bi ma ñëwee fekkee nit ñi tàmbali na ñëw biñ tàmbalee ñëw ci la suma bi woo mu ne ko maa ngi ci yoon mujj bi jotatut ko eh, ma woo eh, monsieur le maire Adji Mor moom mu jóge ngantu mu ne ma danaa liggéey ci parti bi li ma man ak lima ma manut incha allahu waaye jéggal naa leen ci takawal bi defar leen waaye du dara nag ma ne ko baax na jërëjëf eh, waaye Ibrahima Ba dafa yor parti dafa def mouvement ñëw na Dadi Ba dafa yor parti ñëw na parti bi amoon na ñaari conseil mu ko ak Pape Top e, ki ñooy wax oustaz e, e, oustaz ki dëkk Sobel ki Santa Diallo ñëwoon na ñu ne dafa yor parti xam nga kenn ku ne mooy présentul boppam dama yor parti nanga Aji Ba ñëw na dafa yor parti Modou Diagne Fada ñoom ñoo fa Cheikh Fall ñew na dafa nekk responsable yoroon mouvement ba mujj ñëw bokk ci parti bi ñoom ñëw nañ waaluur eh, équipe bi génn wala bi ñoom taala taala génn ak jigéen ñi ak góor yi ñi ñi a fekkee yem ñëw nañ fekkee ji biñ toogee ma ne leen pour tagal comité électoral mooy tag ñu daje fii comme niñ ko doon baakoo def kon léegi loolu moo ñu fi indi nañ ci waxtaan ñu kool ni ñooy war a takawalee ñu ne nañ gol nañ gol ma ne leen man de lenn laa leen ay wax benn poste soxla xuma ko ci poste yi waxtaan leen ba ñu déggoo ñu ñëpp ñu tegwal suñ bureau waaw man jéggale naa poste yëpp bi ma ko waxee ñu ma delloon man te bi yow rek lay doon ma ne déedéet kool leen ki ngeen jël baax na ñu wax ma ne leen ku ngeen jël baax na ñu mujj bi ñu ne ma koolal ma ne leen kon ngeen may ma léegi Talla Gueye responsable yàgg na ci politique bi nekk congé kon nañ ko jog président bi ala aji aji ba dafa nekk ci du Modou Diagne Fada ànd nañ avant élection kon ñu jóg ko trésor Cheikh Fall ñu jog ko eh, secrétaire général léegi yeneen poste yëpp ñu kool commission bu ne Ibrahima Ba Ibrahima Ba ñu jog ko ñu jog ko ay ay commission ñeneen ñi fii teew yëpp kenn ku ne ñu jox la commission nga jiite ko góor yi ak jigéen yëpp ñu boole leen ci ñu tekaal suñ bureau bi ñu waxee ñëpp d'accord ci. Euh, déedéet nango ñëwul ñi ñëwoon laa la wax waaw dama kon na maa ngi ci yoon maa ngi yoon mu jun ñëw mm-hmm. léegi ñu tekaal suñ biro ci jàmm ak salaam ñu tàggatoo bi ñu tàggatooxee ma jógee fa ma ñëw fii guddi ma fanaan fii ma fajaru dem Tamba bi ma demee ba ci suba gi ma woo ko ma ne ko yow mu ne dema ma ne ko léegi comme waa man kelaat leneen ndax fi ñu tàggooyee ak liñ sekk ci jàmm ak salaam ak teraanga sekkuñ dara dara dara eh, fay fay ko ndax suma jerba nekk suma doom kelaatuma kelaatu mosuma kelaat ne dafa am ci lim ne ci laa ko ma comme eh, ana ana eh, représentant bi eh, ma binda ko mu ne maa ngi dem ci alaaji ñu ñu binda ko ma toog tuuti ma woo alaaji alaaji mu ne ma naango mu ngi nii tànn nañ ba pare ñi ñooy war a ñi ñooy war a jël awa nañ ko bittee Mwaka awaye bitte representai akikoto pang mandateri. Kon ma japa error amut. Wana kom ka nyungo jublu ci election man bare bare huma limay hote. Lol mom ñem na ma ko nangul. Kenn ku ne am na cat. léegi même su may kër damay dem eh, ay fan fekkee duma leen xoosa ñoo may woo eh, ma dem benn fan eh, comme que xooxul ma te ma doon xoo man ma woo ko sone sone be kuppe jëlut ma waxaat ko jëlut ma dem ma hésité de de o jëlut waaye mosuma kelaat leneen mooy tag jëlut ma ma mujj ko envoyé message message ba léegi mooy su mooy ma ne ko monsieur le maire ah man woo naa la semaine manuma la jot lan moo kew bu dee danga bu dee dama def erreur suma diggante ak yow bul ma ñàkk a xoyu nga wax ma li keew moo gën ñàkk a xoyu ñu waxtaan ci mu ngi nii message mu ngi ci suba gi e, suma benn waa ji woo mu wax ma affaire bi. mu génn def def sa comité boobu. kese moo tegoon moo tax ma toog fii ndax su du doon kàddu boobu du ma ñëw fii lépp li ma nit gàcca damay kalaat li ma Sidi Ahmed waxoon doomi Alaaji Abdou Aziz Dabakh mm-hmm. dama jëndal benn yire boo xam ne man na ñaar fukki junne par juma rek laa ko solee de jullee ca suñ kër su ma paree rek leem daaw la ma ko jëndal leem ko jox ko Abdou Aziz mu indil ma ko mu ne ma mère mu ne mu ne la teg bul onko dañ lay teg lu ne waa bul onko jàmm rek ngay xam nit ku baax mu wax man lii ci téléphone ko jërëjëf mooy tax li ma nit xaj su ma xalaatee kàddu boobu rek demee noonu même même Thierno bu sëñ Ousmane Gueye wax na ma ko mu ne ma maire mu ne mu ne dañ lay wax lu ne waaye liñ la xaju rek gàddu bu lonka su ma xalaatee seen kàddu yooyu rek li ma nit wax rek ma xam na ñin moo koy waral ndax am na ñu ma bokk ndey ak baay kenn mosul leen wak comme kay ngoroon ci lii am na ki ma topp am na ki ci man waaw kenn mosul leen wak dara kon su ma nekkee ci ci ci kanam nit wala ma bëgg a nekk ci kanam nit ñi forcé ñu wax ma waaye eh, yàlla baax na eh, bi bi nga xam ne wax na li may wax ci mbiru parrainage bi man am naa ay doom ma ay set am ay jerbaat am ay ñi ma amante ci politique ñu am relation ñu jàpp ma nit nit ku déggu la kon su wax bu mel nii amee su fekkee leeraluma ñoom ñëpp seen kool day jéegi jaaka même su ma njaboot dañ may dañ may kool ñuy def ci seen galaar ànd ah, ak ñun suñ papa ñu ngoy def affaire yi dañ may dañ may touché trop su du doon loolu du ma ko mos a fayu ndax su ma jerbaal la su ma doom la najaayam ki nga xam ne moom ak yaa ñoo bokka ndey ak bay dama ko jox Allah diggan su ma diggante ak gente paate ma sinca fa ma jàppale ko ma defal ko defal ko fa dama de libéré ko ñu wel ko ko ma tagaw ba mu ñëw sinca fa dëkk fa ma sekka moom lu bare bare bare loolu yëpp sumay ba ma ne pour jimmam bi la papam ci ma papam ci boppam jox naa ko suuf ma ne ma woo ko ma ne ko monsieur le maire ma ne ko eh, nit ñi dañoo dañoo yokku te ne suuf fi ma leen may fekkeel nga def fa ñaari nekk ma jàppale la nga dugal fa ndox mm-hmm. kon ki lay defal loolu de la kelal damay jàppa suma diggante ak papam Amady Ka ma jàppa suma diggante ak Seydou moo ma dugal ci politique jàngal ma ci politique boole ma ak maam Samba Seck gannaaw bi ma tàggoo ak Umar politique te biñ tàggoo dara ñaawut kon suñ ma waxee loolu damay war a leeral en 1998 laa dugg ci politique ba 2024 mosuma keeg ci politique mosuma kuloo ci politique mosuma daggoo ci nit ci politique ci ci rajo laay wax kenn manu manu woo kumante mu ne waxoon na diw nangam wala keekoon na diw wala nangam su ma gisee keeg rek rocceeku naa dem man li ma kam ci politique ki nga àndut nga peke ni ngeen nakante waxtaan ak jàmm ak salaam be mu fekk ci linga ne waaye eh, saaru yi kaw ma ko ci wàllu parrainage bi moom mu ngi parrainé weer nit ak juróom trente-cinq pare parrainé ñetti fiche ak mocc la parrainé parrainage bi biñ ma jokkee fiche yi jëliwuma ko sax dañ ma wax naa dem jëli ko ma ne leen ma boole leen ak chauffeur chauffeur bi ma fay ko mu indi ko ñu jot ko biñ ko jotee ma jël jog Cheikh Fall ma jël jek Ibrahima Ba yu ci dee ma jël ko jóg ko ak duudu si ma ne bittey mu ne ma ko demal nga jënd karne képp koo xam ne indi na parrainage bindal turam santam numéro téléphone am ak dëkk bi mu jógee ak ñaata parrainage la indi mosuma laal parrainage mosuma lamba parrainage duma eh, ndak dama bëgg li ma am rek fii ëllëg suñ ko dugalee ci ci ci seen ordinateur yi fekkee dubuloo du am wala tappalee du ci am wala leneen waaye su du doon loolu mën na am fukki junne parrainage ndax eh, eh, eh, fukki million ak juróom yi ñooy wax jigéen ñi dañooy indi seen groupement yi ba ñu million groupement yoo bëggoon ma dugg foofu duma mos dem wuti di pare naa dama indi fii rek dem toog rek ay kale ñu rampalil ma waaw mosuma leen laal pare naa bi yëpp ñaari nit ñi ñoo koy pare ne duudu si eh, eh, ah, bittee alaaji baaba bittee ku indi suñ ma jógee sax ma ne ko yóbbul jogal ma duudu yóbbul jog duudu si ku soxla fii ma ne ko demal jog eh, demal duudu si jox la wala su ñëwee fekkee ma yor fii ma jok ko ma ne ko soo rampalee nga dem jóg duudu duudu moo rampale def ci carnet biñ demee ci première dépose fekkee dajale nañ ñaari junne ak téeméer ak juróom fukk ministre Abdoulaye Sow bi mooy ñëw Missira ñu yóbbu ko fekk ko fa bi tey indi jokk ko ñu ñëw dajale haat dajale haat ba ñu nekk ñaari junne yu manki tuuti parrainage boobu eh, baaba bi tey Doudou ak Aliou Sy suma chauffeur ñoo ko jël yóbbu ko Kaffrine jokke ko mu nekka ñeenti junne parrainage yu manqué tuuti liñ manqué matu téeméer jàppatuma liñ mujj yóbbu waaye liñ njëkk a yóbbu mu ngi nekk ñaari junne ak ak juróom liñ mujj yóbbu mu ngi nekk ñaari junne yu manqué tuuti soo boolee mu ngi nekk ñeenti junne yu manqué eh, liñ manqué matut téeméer daal jàppatuma ñaata la lii laay déposé ci parrainage ci nii la parrainage bi dokee man même bitik benn client rek laa am même 2014 ba léegi cher rek lay jëlee gasoil même kër benn njaatigi rek laay kam euh, loolu loolu du suma même responsable kenn rek laay am bi ma àndee ak Kaw ma kenn ku dóor Umar Ba bi ma nekk di Umar ñu ne maam Samba Seck laa àndal maam Samba rek laa kam su ma jógee ci moom moo ma jógee ñoon mata mata si jàllo rek mais bi ma jógee ak ci ci mata si jàllo damay dem waxtaan ak moom tàggu ko ma ne ko damay génni parti bi maa ngi dem ci APR ndax ASP dogatut su ma fa nee ne damay ñàkk nit ñi te bëgguma ñàkk nit ñi maa ngi dellu APR ak nit ñi APR la mu wax wax ma ne ko loolu laala la ñaan su ma mu nangul ma ko yëkkati trente mille boole ma ak chauffeur mu yóbbu ma bon maris e, ma dugg oto ba sànka ñu ma man ak man ak bàjjen ma desi ñuy waxtaan mosuñ mosuñ am kaar ma yàlla bi ma nee ci APR ba ma nga xam ne e, dem nañ ci local gisuma kenn kawma kenn yaaya la ñooy toppa bi yaaya jëlee liste bi joxe ko man demay génni ñu ne ma ne leen nañ génni keroog la mos dem kër kër Mor Dieng doole PDS amoon ak seen am am seen programme yëpp mosuma fa dem waa mosuma kula ak ñoom mosuma keek ak moom waa kenn mosuma kelaat ci PDS bi ma leen waxee nañ dem PDS ñëpp dañooy takaw jàpp boppam ñu ne yow de dog nga bi yoon ma ne leen nañ dem PDS man demaa ngi dem PDS ku nangu ñu dem PDS ku nangu dem naa PDS biñ tàmbalee wax ni fekk teel naa programme ma wut charge casier judiciaire yu bare bare bare defar lépp Hmm, demay gam demay génne te su may génne fekkee ñi may ànd ak moom hésité nañ dem nañ feneen man naa def suma liste bopp ndax fekkee yor naa jumtukaay yëpp yàlla def ñu waxtaan ñun ñëpp ñu déggoo dem dem ci alaaji Mor Jeng waxtaan ak moom ba déggoo ak moom mu sedda ñu ay conseil ñu mu génni liste bi mu dugaloon mu génni am yi ñu ñooy dugal ñu ànd ak moom ci campagne bi ñu àndee ci campagne kamatuma kenn alaaji Mor Dieng rek kamatuma kenn alaaji Mor Dieng rek kooku laay waxtaane ci kooku laay dem kamatuma beneen responsable yoratuma beneen responsable ba yàlla def ñu gañe biñ gañee ñu anda anda ba yàgga ma ne ko bay alaaji mu ne ma ne ko man maa ngi dem APR mu ne de ko dama bëgg nga may ma ma dem ndax man manuma nekk maire commune opposé mu ne ma waa dama bëgg nga may ma xam nga mu ngi nekkoon député nga may ma ci kanam man it maa ngi waxtaan ak kilifa yi ma ne ko ma ne duma may bay alaaji ñu waktaan ci njëkk ak teraanga ba mu nangul ma may ma ko ma dem ma dellu APR terewul may dem keram may wax ak ñoom ñuy diisoo soxla ñuy sekk soxla ñuy waxtaan lu ne ba bi yàlla tey bii neeg laa yor këram Dakar biyaaya biyaaya bi nga xamee ne am na jafe-jafe it ci président booba man kama ko duun moom waa bi ñu waxee ak moom ñu xam du dellu fekkee man ñemewuma ko toppa manuma nekk maire ma bu a liggéey commune bi ma opposé ci ko bàyyi yàlla de Ablaye Sow fekkee feeñ na ma dem ànd ak Ablaye Sow bi ma ànd ak Ablaye Sow léegi kaw ma kenn ku dul Ablaye toppuma kenn ku dul ablation waxuma kenn ku dul ablation moom ak ñi ñi mu àndaat ñu ngi leen maa ngi wax ak Assane Diop maa ngi wax ak Fanta maa ngi wax ak Baye Alaaji Mor Ja ñëpp képp koo xam ne rek man ak ñoom benn lañ waaye nag njaatige bi ablation la ndax gannaaw moom mooy nekk ci région bi bi ma génnee moom laa jokante la ko kamatuma kenn ki may war a wax ci ci politique bi ku weesu moom te mu may jàppale ci biir ak biti ma gis muy jàppale région bi ma gis muy jàppale ay commune bi kalangu dajur su waaye kenn ku ne xam na ne leer na ko leer yàlla Abdoulaye Sow ministère yëpp suñu meloon ni Abdoulaye Sow danoon fekke eh, lu bare bare bare eh, eh, mu mu mu ngi gën a ñoŋ kon daal di mën di nangu wallaahi billaahi wallaahi tallaahi jéggal naa ko ci kol bu talli yoraluma ko benn hakke suma doom la ci Saydu ka ci Hamadi ka suma doom la ci mbañ najaayam suma jerba la suma sella sa suma sella moom suma sella ci mbokka ci yaayam ci mbokka suma sella suma suma seti sella yaayam mooy suma seet ci mbokk waa wa mu wax wallahi billahi wallahi tallahi dara du ci dégg waaye dama koy sant ak ko ndax dama xam ne kale la su ma waxee dañ koy jëfloo maa ngi am ak yàlla ndax kawma ma waaye li ko ci dugal rek erreur la te koy gën a talalaa loo ko mu génn ci erreur boobu yàggut yàggut yàggut dafa am benn kuréel kaw ci commerçant yi ñu fi samp ay ay kuréel ñu ne développement la bi mu ci duggee yóbbu carte bi luur wax ma ko damay génn jënd carte ma ne ma nit ñi jënd leen madul semaine mu dew affaire yi kon su fekkoon yoral naa ko wala sekk nañ leneen loolu du fekka yoraluma ko dara wala yoraluma ko dara waa li mu wax dara amu ci yow yaakaar nga ne kan laa war a jóg parrainage te yow kenn ku ne muy muy bugg a wax ne naa gina naa ëppale pare naa ci commune yi kon ma am pare sedda eh, kaajoo ko ñeenti junne yi ma am parrainage amul benn boo xam ne dëkk yi soo demee duudu si ubbi la bi dana na wax village sangam lii la indi diw moo ko indi village sangam lii la indi diw moo ko indi luur kii moo indi lii kii moo indi lii kii lii dana la ko defal partage be mu jóg moom ak bitee dara nekkul ci moom moom moom moom fanweer ak juróom la indi def ko ci loko eh, baba bitee mu jóg ko duudu duudu mu ngi ko enregistré ci ci ci carnet bi soo demee ci carnet bi da nga fekk nguy jaraaf kampama 35 pare ci biir ñaari junne yi loolu kon léegi leer na mooy que ne tuuma loo xam ne lu am la. Mhm. wax nga fi mu jéego fi ngeen toll. Mhm. mais beneen mbir mi rek jafe bi moo taxaw fële xam ndax ñëw na wala ñëw. Mhm. tey nangu. bu ñu delloo ginnaaw sax sa premier bi ak partenaire bi gisul nañu problème yi yi yàkkamti. day indi leneen yi. te. soo hande ak nit nde la war a déglu nga déglu ko da ngeen war a xoolu hante su xoolu hante jeekee ci ay anda walla kenn ku ne di déglu keneen man na indi jiiki jaaka yi te ci rajo lay wax may ñaan ministre Ablaye Sow ci commune Lour laa wax comme que foofu laa dëkk bépp militant APR boo xam ne mer na te mu ne erreur bi suma diggante ak moom mooy tang mu mer su koy recevoir na ma xooxaale ma toog su ma toogee mu toog moom kilifa gi toog suñ waxee maa def erreur damay dellu gannaaw ma ne ku dul juum amut damay tuub raam ma xam ne maa juum ñu jokkante la ko nii nii la demee su ma ñëw toog ci rajo bi tey de wax wallaay pour teggituuma sumay doom ak sumay set bugguma mukk xelleg ma jógee fi ñuy wax ci man ñaaw te li nga xam ne mu nekk dégg wala responsable ñi nga xam ne kam naa leen dem dem naa Kaffrine waaye ki ma gis rek maa ngi ruus ndax maa ngi wax ne ki ñii de am na fiñ ñu may ko boot bi ñu may koole su fekkoon du parrainage ñaari yi ma wax ne dew naa ñaari parrainage kenn du ma dégg ci ci lu ma nit wax dama koy jéggal ma xam ne njiit mooy mooy mel noonu loolu kese moo ma fi tegal waaye eh, suma aduse moomu maa ngi ko sant de ko gërëm kel moo matut nin matut xay su fekkoon dekkuñ ko tey laa gën a soxla ak moom ñu continuer liggéey ndax eh, ku bàyyi boromam rek sa doole wàññeeku na suñ ma bàyyee seen doole fuute na suma doole yàqu na suñu àndee dañooy am doole ma am doole kenn ku ne bi ma koy tànn adusiyee euh, ci coobare yàlla ci suma loko loko yàlla jaarale conseil yëpp dama leen xool ñu ne ma koo na doy nañu koo jël doy nañu kenn ku ne am na ki soxla woon to mu toog ñeneen ñi dem de campagne surtout surtout naango maire Nangu Ka am na ñoo xam ne ñoo ko ëppaat ko saa ci liggéey bi mën na ñetti nit ñëpp soxloon nañ ñëpp ma teg leen ma jël ko ñëpp ma teg leen ma jël ko te mu mu gën a nekk kale ci ñoom nekk seen doomaati doom ma jël ko te comme lim liggéey la la ñoom liggéeyoon waa dama doon xool suma diggante ak papam démb suma diggante ak Seydou Ka démb loolu la kon eh, daal fépp lu am te du jàmm amut dara amut li ma leen ay dénk kenn ku ne na pekke te xee làmmiñam làmmiñ mooy may nit jàmm mooy kañ nit jàmm làmmiñ mooy yóbbu nit safara mooy yóbbu nit aljanna irne soo gisee ñu def ko kenn ku ne ki nga bugga ki nga soxla tooga rek ba bis ba nga defar sa électeur nga dem waaku ndànka dem jël bulletin yi sànnil ki nga soxla génn dem jàpp sa njàmbur suñ ko defee ki jiitu mu dem yoonam waaye suma ma ak maa samba yow nga hand ak maa ma ñëw de kay maa samba de nga ñi su yàggee suma ma ko jóg ndax kooku gisoo ko déggoo ko man ngay wax su boobaa loolu mooy indi affaire te ñoom ñi ñooy coowal nekkuñ fi ñun ñoo fi nekk ñoo bokka néew ñoo bokka ngente ñoo bokka ceet ñoo bokka marché bi ñoo bokka garampalaa bi ñoo bokka suñ bureau man de dama leen ay tàllal ko ñun ñëpp te damay gis benn jafe-jafe su ma toogee ba yàgg damay ñun ñun parti Benno Bokk Yaakaar ñu ngi déggoo waa Sonko yi ñu ngi déggoo waa Bougane Gueye ñu ngi déggoo ak Khalifa Sall ñi leen fa neexal dañooy foode ree de duma ñun ñi nga xam ne ñun ñoo bokka benn gaal bi bokka benn njaatigi bi ñu ñàkk a déggoo loolu loolu njàngat bi ma damay damay tedda comme que yàlla dem ma natu ci politique ma kool ban saafara te manu kenn manul wax def naa leen lii wala man ma manuma wax def nañ ma lii mu nekk rek li nga xam ne sumay boo ma ne mbiru yàlla la rek waaw loolu nag faj bi rek mooy ku ne gina dellu gannaaw pour ñu xam suñ candidat su jàllee ñun dañooy avancé suñ candidat ci perte suñ kër bi yëpp mu nekk zéro ñi naan nekk suñ gànnaaw ñooy nekk suñ gànnaaw. jërëjëf na yaatu na tey lu nëbbu lu na mm-hmm. mm-hmm. bu baax a mm-hmm. la sant di la wax ak jërëjëf. di uysi bi nga kontaan naa Matar Sarr kontaan naa lenn nag mooy li nga xam ne moom day danaa la ko wax ci rajo bi. Ah. kilifa yëpp ñu ngi ci groupe bi Saaman. soxla naa ci bokka nga gàndal ba ba léegi waxatuma man man man bokkuma ci ñëw kam ne dañooy dañooy kaabaabal de dem de ñaani wala de dem de wax wala de dem de dumanin ah. li kam daal gërëm région bi yëpp may gërëm ministre Abdoulaye Sow lépp luy nit am loo ko yàlla la waa day am fi ñu koy jaarale yàlla du wàcca defal nit waa day defal mbindee mu defal nit su may dégg conseil économique social environnemental gannaaw yàlla ci loo ko ministre Abdoulaye la ko jaarale ba fi ko yàlla jeexalee rek falaay jeekee xam laa du ci man dara waaye dinaa ko ci gërëm ndax soo santul nit. wax nga kam nga wax naa la wax naa ci rajo bi ma man képp koo kam ne génn na mu ngi ci parti ba mu ne dafa mer na dem gis Ablaye dañooy am jafe-jafe Ablaay balaa mu recevoir ko na ma woo ma toog mu toog bu dee ci mal la yedda ma ma yedda suma bopp bu dee ci moom la ma xam ne nit matul ñu waxtaan jokkante la ko suñ ko defee avancé rek waana fekkee e, kenn ku ne xaw saawa boppam e, dañooy dem ba fi ba nga xam ne kii jëriñoo ci parti bi day dem ba bugg a parti bi daanu sax te loolu baaxul voilà loolu la jërëjëf